liggéeykat war yi daje nañu ak taskatu xibaar yi tey ci talaata ji ngir waxtaan ci jafe-jafe ñiy jànkonteel ci seen bërëbu liggéeyukaay ñi mettitu lool yi li xew-xew. ñu wax leen mu leer ne leen li ngeen ñuy woo compre d'accord nañ ci mais comprendre luñ ko parce que li ñu doon gënal ngeen def benn note de service boo xam ne du am xaj ak seen parce que lii dafay niroog yëfu kumba na am ndey ak kumba amul ndey toog rek tànn seen ay nit ne ñi ñoo war a dem. te ñu xam ne mënoon na gën a yées loolu ci kaw ay charte yoo xam ne expliqué wuñu ko dafay niroog dafa am lu muy niroo waaye ba tey nangu nañ principe bi principe bi mooy dañ fiy liggéey di indi suñu xam-xam di sotti ci ci kër gi ñuy ànd ñun ñëpp di liggéey muy am ay résultats sénégalais yi di ko gis ak àdduna soo leen demee nag ba bugguñu defal suñuy bagage ñu dem nangu nañ waxtaan ak yéen mais na ngeen ko teg ci charte ñu dem te kenn du ko yëg loolu lii moo ñu booleeg euh, direction générale war yi tey. Makindé Dramé bokk ci collectif agent war yi moom nee na dañoo war a toog waxtaan ngir am ay leeral ci li ñuy jànkonteel te nag CNTS pare na ngir gunge leen ci xeex boobu. mu nekk tamit lu ñu naqari parce que ba may ñëw collectif bi ñu ma ci gën a gis ay jeunes lañu te war yi dafa nekk benn société boo xam ne jeune moo ko créé yàlla dimbali ko fii ci Sénégal yàlla mooy ko fi teraanga. teranga bi mu ko may fii ci Sénégal moo indi mun naat ba dem ci Afrique bi yëpp tey ak au niveau international ba yàlla may ko moom ci boppam mu dem wuti beneen siège yóbbu ko beneen dëkk bu dul senegal yàlla may ko tey mu taxaw ba ne moom dafay yóotu li nga xam ne tey moom mooy Tigo sénégalais yi bañ ko déggee ñëpp tàccu ne ah doomu Sénégal bu ñëw Sénégal defar ci société ba société am taxaw ba yootu benn multinationale ñun ñi ñëpp on est fier mais boobu dafa am fu muy yem. mooy lan du mën a ànd ak injustice. di wax tamit ñi nga xam ne tey ñoom ñooy autorité yi lii dafa commencé ëpp parce que gis nañ ko Sonatel gis nañ ko Tigo gis nañ ko Expresso dañuy xëy di gis ay licenciement monsieur Diop wax nañ ko abusif ñi nga xam ne tamit ñu ngi licencié dañuy jaabante jaabante ba sonn mais du ñu am ñi nga xam ne état bi taxaw seen wet nu mu ko waree ba nga xam ne tey ñi koy def ñu ne leen déet lii war ngeen ko arrêté ñu ngi ñaan yàlla ki nga xam ne tey mooy Kabirou Mbodj yàlla teg ko ci kaw wari xelam dellu si mu toog ak collectif bi ñu jaarale lépp yoon ñu waxtaan ñu jox leen seen àq ak yelleef bu ñu war a teqale ko ñu teqale ko ci lu rafet mais ñun di man de Cheikh du ma noppi ci ànd ak ñoom taxawal leen fu sama baat mën a egg naa ko fa eggee pour ne leen seen àq ak seen yelleef nañ ci jot je si seen waxtaan jot nañoo wax si problème agent Ogi yi ak yi ñooñu daan liggéeyal ay chinois ñu gis ni ñoom bokk mbébét ñoom daal nee nañu li Cheikh Amar def daf ko war a teg si yoon. ceci est inacceptable et au-delà de l'employeur nous interpellons les autorités les violations des libertés syndicales les violations des, des droits des travailleurs deviennent légion et la coupe déborde. Les organisations syndicales n'en peuvent plus. On ne peut plus assister de façon passive aux violations des libertés syndicales, aux violations des droits des travailleurs. Aujourd'hui, c'est Wari. Hier, ce fut Madame Khadijatou Sar Kebe, DG de Ogi, qui prive aux syndicalistes leurs droits. Il y a également ailleurs, dans beaucoup de multinationales, au niveau des Asiatiques, c'est presque l'esclavage. Ce n'est pas Mme Khadijatou Sar, euh, DG de Ogi, qui va répondre devant le BIT si l'État du Sénégal est attaqué. Ce n'est pas non plus Kabirumbo qui va répondre des violations des libertés syndicales devant le BIT. Donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée face à ces multiples violations. Pour ce qui concerne le collectif des travailleurs de Wari, soyez rassurés qu'à partir du moment où nous avons le mandat de vous, de vous accompagner, nous allons saisir votre direction et les autorités compétentes pour demander à M. Kabourimbo et à la direction de Wari de revenir à la raison et de se retrouver autour d'une table avec les syndicats, avec le syndic, avec la synthèse force du changement et le collectif pour négocier un plan de départ